yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi. asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. mbokk yi ñuy sataan ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar di jiital di nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal sunu borom mu yàggal ko fi te wéral ko sëñ maam Balla ñu ngi lay nuyu. di nuyu Serigne Ndiaga ñaŋ ak Serigne Alla Diaye mi nga xam ne mooy vice président bi di la beral nuyoo yow mi nga xam ne tamit yaay coordonné liggéeyu daayira Muxaddamatul Xidma di la yóbbante nuyoo tamit ci kilifa yi ngeen bàyyi te nekk Mali ak fuñ maa nekk ci biir réew ma buñ mën nañ cee ràññee sëñ maam Balla Mbakke ak soxna maam Faati Mbakke ak sëriñ Mbakke Ndiaye mi nga xam ne mooy jëwriñu kër Sëñ Tuubaa ga Euh, ak yow sëriñ maam Balla Thiam ak sëñ Mbaye Thiam ak ku mel ne sëñ maam Góor ja euh, ak sëñ kii Mbaw sëñ Abdou Khadir Mbaw ñoom ñëpp it ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen sant di leen gërëm waaye di nuyu tamit sëriñ Mafari njaay mi nga xam ne euh, ku jàmbaare la ci liggéey bi di yaatal liggéey bi ci Afrique nga xam ne daanaka bëri na liggéey bi Moukhaddamatoul Khidma ci diggante Malek Côte d'Ivoire yoo xam ne wax dëgg ci moom la jaare moom ak sëriñ Assane Diop mi nga xam ne mooy jëwrin ji ñuy teewal ci diaspora bi di def coordination bu am solo ñu leen nuyu ci turu sëriñ Afia ak kilifa yi nga xam ne teew nañ fi ci jotaay bi xam nañ bu baax yéen waa Mali fonk ngeen fonk liggéeyu daayira Muxaddamatul Xidma moo tax kilifa yi bàyyi nañ ko xel bu baax a baax ndax kilifa yi daayira bi yëpp a ngi nii sëñ Abdou Lahad mu sëñ Abdoul Moutalib mu général bi sëñ Abdou Lahad sëñ Abdoulaye Diop muy secrétaire général arsin sëñ Abdou Lahad Muxtaar moom di secrétaire général sëñ Abdoulaye Maas a jiite commission sociale et relations extérieures xam nañ seen pasteef bu baax ci liggéey bi ak taxawaay bu rëy bi nga xam ne yéen ko ciy taxaw dafa mel ne da ngeen am pasteef waaye jamono ji kenn ku nekk xam na ne réew ma sëñ Mafari wax na ko dama ñu ngi ci ay jafe-jafe yu méttee métti nga xam ne daanaka léeg-léeg ña fa nekk di ay ouvrier ak ay liggéeykat ñu ci bëri dañu toog diir bu yàgg sax léeg-léeg courant du am kon dafay mel ni euh, jafe-jafe yi bëri na. waaye lii ngeen indi ci liggéey bi Sëñ Tuubaa bi nag man nañ cee ñaan fasal la ci jafe-jafe yi jeex takk ba taalibe yëpp dellu ci euh, nañ meloon nu ko raw ba man a am addiyee mën a am tamit lu ñu yóbbu seen kër bu baax a baax a baax te mu ànd ak kaaraange barke Xaadimu Rasuul te loolu jàpp naa ne lu mën a nekk la ndax jumaa jii kat jamono yi koy tabax boobu la bi gën a metti waxuma la ñàkk courant waaye nit ñi luñ naan sax amuñ ko woon ba nga xam ne dañ daa ndox mi ngir bañ ñu koy naan te gis ngeen jamono yiñ koy tabax niñ ko tabaxee ci Pastef ak ci fulla ak ci fayda kon rawatina bi nga xam ne lépp nee na gàññ kon fépp fu taalibe nekk te am pas-pasu liggéeyal Sëriñ Tuubaa rek boo ca jeex tàkk te it koom dana ñëw te naataangay dana ñëw loolu kon rafet nañ ci njort bu baax a baax kon bi leen yàlla tawfeexalee seeni dërëm ak seeni eh, tuut tànk ak seeni seeni tànk ak lu ngeen am lum néew néew ngeen fexe ba mu ñëw ngeen tabbal ko ci liggéey bii ñu defal Serigne Touba fii ci koor gi loola jàpp nañ rafet nañ njort ci ne euh, buñ ci fasee man naa jeexal crise ba takk euh, waxuma la euh, àddina bépp kon yàlla yàlla def tawfeex te nangu jëf ji te képp koo xam ne daal jëfoon nga ci nga xam ne sa liggéey agsi na daayira bi jot nañ ci danañ leen ko defal ci liggéey bi kon yàlla yàlla fay képp ku ci jëf te ful ko bi barakati xadim rasul te ñu yàgg koo ànd bu baax a baax barke Borom Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. auzu billaahi mina rajiim bismillaahi rahmaani rahiim barke Borom Tuubaa bu buñ sante yàlla sunu borom subhaanahu wa taala moom mu ñu baaxe ban teewaat fii di jëli ci yonenteem bu tedd ba di yeesalaat sunu pas-pas ci seexul xaddim di ñaanalaat bu baax a baax seex Muntaxa mu yàgg fi lool te wér di ko ñaanal Serigne Amdi Modou Mbenda ak mboolem. seexi sëñ Tuubaa rek mboolem murid di ziyaare bu baax euh, jëwriñ ñun fekk ci barab bi ñu ci jiitalee sunu sang su baax si toog sëñ Abdoulaat Maasa sëñ Abdoulaat maam Thierno ak euh, mboolem jëwriñ yi nga xamante ni ñoom lañ àndal liggéey bu daayira Muxaddamatul Xidma ci euh, sëñ Abdoulaat Diop ñu ngi koy ziyaare bu baax a baax di yeesalub ziyaar tamit ci sunu sang bu baax bi. sëñ Afia bu sel imaam tey ñaan yàlla sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ci barkeb Cheikhul Khadim di amaat mbégte lool ci teewaat ci barab bi ndax saa suñ fi teewee buñ fi jógee beneen pas-pas la ñuy am beneen yëg-yëg tamit la am moo tax dañuy sawar lool ci teew fi di ziyaare bu baax tamit di nuyu jëwriñu baax yi nga xamante ni moom lañ bàyyi ca Mali mun ci jiitalee Serigne maam Balla Mbacke ak soxna maam Fati sëñ tàkko mi nga xamante ni moo yor liggéey sëriñ Touba yi dañuy ziare mbooleem jëwriñ ñi fa nekk di rawatina ñi nga xamante ni saa su liggéey daayira Muxaddamatul Xidma jógee ñu yëkkati seen addiya ak seenu jot lépp def ci ñu ngi leen di ziare bu baax di jël nuyoo beeg ziar bi yëpp nag teg ko ci loxool jëwriñ sëñ Mbay Caam mi nga xamante ni moom moo fa toog toogaayu liggéey bi ak sëriñ uh, Maam Góor Ja sëriñ Jili Mbaw sëñ Fàllu ak mboolem section yi nga xamante ni euh, ñoo yor liggéey bi foofu ñu ngi leen di ziare bu baax a baax te di leen joxal ab nuyoo euh, teew nañ fi tamit ànd ak suñ jëwriñ yi nga xamante ni euh, kenn mënu leen ci liggéey bi day jàmbaar lool te yàlla suñ borom dogal ñu jóge ca dëkk ba léegi jóge si fii ci dëkk bi bu buñ ci jiitalee jëwriñ seen njagañang mi nga xamante ni saa su nekk bu ñuy jébbale liggéey bi ñoo koy ànd sëñ Ali Ndiaye mi di jànkatu xasida moom tamit di vice président ci liggéey daayira Muxaddamatul Xidma moom tamit yàlla suñu borom dogal mu jege si fii ñoom lañ àndal ci liggéey bi ah di sàkkuwaat rek ñaan ndax saa suñ fi ñëwee amuñu daara lu ñuy yëkkati lu dul tàllal suñuy loxo rek di sàkku ñaan te dëkk ba nga xamante ni tamit fala la jëwriñ yi jóge léegi rek lay jokk sëñ maam góor mu may wax ni ma de boo yeggee ci jëwriñ bi wax leen ñu ñaanal ñu bu baax a baax a baax ndax dëkk bi doy na waar lool ndax danoo toll ci crise ba tax na jëwriñ yi nga xamante ni ay liggéeykatu Serigne Touba lañ woon ñu bare bari daw ñibbisi ba euh, jëwriñ sëñ aali mi yaakaar naa ni bi mu ñëwee léegi matul ñaari weer te jàmbaar la woon ci liggéey bi. te noonu la ci bare jëwriñ yoo xamante ni ñu daan yëngatu ci liggéey daayira Muxaddamatul Xidma lan te yàlla suñu borom dogal dëkk ba doy waar ci ñoom lool ba ndaw ñibbisi ña fa nekk nag ña nga toog di muñ soxla nañ ñaan lool. moo taxoon ñu ni woon kat boo yëgsee fii nan wax jëwriñi kat ñu dolli leen ñaan bu baax a baax a baax te liggéey bi sëñ Tuubaa moom lu mu xat-xat lu mu métti métti moom xalaatuñ koo bàyyi te yu yàgg lépp lu am tamit bëgg nañ koo def ci liggéey bi kon nag ba soxla na ay xéewal lool kon ñu ngi sàkku bu baax a baax a baax ci barab bu selli bi ñu nekk eh, yàlla suñ borom woyofal lépp te yàlla suñ borom yombal lépp ndax kat dépasse ak addiya rek la ñuy daw kon ñu ngi ñaan yàlla suñu borom yombal ko ci barke Cheikhul Khadim addiya ji tamit euh, mu ngi nii toll na ci euh, cent cent cinquante trois mille euh, ñu xeeb ko lool waaw ndax li ñuy wax addiya du tuuti wante murit pas-pasam dafa rëy te buñ sañoon buñ fii ñëw dama jëlale ay millions wante ay milliards lañ fi indi ndax fi kat kenn du fi indi lu doy ndax loo fi indi rek di ko fi fekk waaw kon nag. képp koo xamante ni rek yaa ngi liggéeyal Serigne Touba ah, sa pas mooy maanaam di yanu ba jàpp ni doy na ndax du doy wante da ngay yanu ba jàpp ni doy na rek indi kon ñu ngi sàkkuwaat bu baax a baax sëñ Abdou Lahat ah, jëwriñ ñi li ñuy sàkku muy ak ñaan ñu ngi koy yëkkati teg ko seeni loxo ah, xam na ni bu ngeen ñaanee ci seen barkeb maam yu tedd yi lépp dana saafaroo dëkk ba metti na lool lool lool ci taalibe ya ndax dafa toll ci crise boo xamante ni. Euh, dafa dal ci mbooleem ñoo xamante ni ay étranger lañ muñ rek lañ fa nekkee waaw ah, te liggéey sëñ Tuubaa nag lama leen doon wax rek moom kenn du ni mënuma waaw da ngay joxe sa yéene rek yéene ji nag moo doon heure buñ fiy ñëw ñu xam ni waa Mali ñëw na wante ku ne xam na ni euh, daaw ak ren fi ñu ñëwee euh, xaw naa woyof ci gis-gis lool li ko waral nag mooy dëkk bu xaw a xaw a xaw xaw a sant sekk lool loolu nag ñu ngi leen ci sàkkuwaat ngeen ñaanal ñu ci bu baax a baax a baax a baax a baax ñi nga xamante ni tamit jóge nañ ci réew ma ñibbi si fii ngir fas yéene fee toog tamit ngeen ñaanal yàlla seen war ubbi seen i bunt bu baax ban mën a liggéeyal sëñ Tuubaa ndax seen bëgg-bëgg du dara lu lool ami teraanga ba liggéeyale ko sëñ bi rek loolu rek mooy seen yéene ñu ngi jégguluwaat ci kàddu yi li ci dëng rek ñu xam ni sunu sunu jëm yi la ñu ngi tuub sax ci leen waroon a jëkkee ziyaare bu baax sëñ Assane Diop nga xamante ni mboolem ñun ñi nekk ci diaspora bi mooy suñ jëwriñ ñu ngi koy ziyaare bu baax a baax a baax di rafetlu bu baax tamit pas-pas bi nga xamante ne ak soññee bi nga xamante ni saa su nekk mi ngi koy dëkkal ci suñuy nopp ñu ngi koy ziyaare bu baax sëñ ma fëri Njaay moom tamit ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax te di ko ziyaare di ziyaare mboolem jëwriñ yi nga xamante ni ñu ngi ci diaspora bi te féete côté Afrique ñu ngi leen di ziyaare bu baax a baax a baax tey soññewaat bu baax ci liggéey bi rek ñu gën a jàpp te xam ni euh, lu baax moom yombul waaw lu baax yombul rawatina liggéey bu mel nii dina nuru ci gis-gis lu suufe wante nag euh, euh, baax gam baax moo tax muy jafe di nga ci woote ba sonn tamit ñi ci topp du bari wante nag saa soo ci dëggalee rek di nga gis tawféex ji la ci sëñ bii defal kon loolu nañ ci bàyyi xel te di ci góor góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax euh, xam ne rek du du dadul mbir moo xamante ni mbirum folklore la wala mbirum mbumbaay la wala mbirum àdduna la mbirum sëñ Tuubaa la moo tax faaw nii rek lay demee